marabout de l'arachide mooy ñan baykat yi waa ñooñu mu jël ci exemple murid yi xanaa xamoo tey boo xoolee ci njaal biin xool tey liggéeyu euh, Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal visionnaire bi mu doonoon xanaa xamoo Cheikh Rafal diplomate bi mu doon tubaab yeeg ko témoignal boo demee ci archive yi dañuy il fut un fin diplomate xam nga fin lu muy firi un fin mooy ku ñaw ku ñaw tubaab yee seere li seera faal diplomate bu ñaw la woon ñaari kër yi mu daan jënd ci capital yi la koy jënd loolu du diplomatie kër yi muy jënd ci diggi capital yi la koy jënde centre yi ngir sëñ Tuubaa fu mu wàcc am fa mu dal këru boppam ba ci fii ci Dakar bari na fi tey kër yuñ fi taaral yu rëy ci suufam la bokkoon wax nañ ko foofu yëpp nañ ci suufam la gis nga Sandaga ngay dégg ñuy wax la noo Sandaga xamuñu fu mu jóge garabu sànd Seera dafa moomoon suuf si dafa toog bu ñu nee ana Seera mu ne mu nga ca Sandaga loolu indi turu Sandaga ah? oh, ak ñoom chemin ca Ndar ñoom card ca Ndar nga xam ne ay tubaab lañu dem nañ ba naw Seera Faal ba tuddee ko doom waaw ngir diplomatie bi ñuy soxla wàllu mairie mu jàppale leen ngir diplomatie ba ñu am ndam lépp pour ngeen jàppale ma sama waa ji delsi loolu diplomatie la école école bi ñu ubbi woon ñoom tubaab yi nga xam ni fiisu kilifa yi lañ ci lañ ciy jàngaloo maam Cheikh Rafal ni na njaboot gi dem sax jéem a xam lu ngir ëllëg les fils de chef ñu ci doon jàng ngir ëllëg ñu mën a ŋànk réew mi ndax boo amul xam-xam ci wàll yëpp doo doxal loolu diplomatie la dégg arabe lool tubaab yëpp ko seereel mm-hmm. il fut un fin diplomate qui maîtrisa parfaitement la langue arabe mm-hmm. il fut aussi un milliardaire ndax na ngoon a liggéey ci wàllu foncier fu mu mas a am suuf ubbi na fa ay tool defar fa ay kër ñu fay fàggu addiyee ci lew mu ko yëpp sëñ Tuuba ak njabootam daan yëngu tam ci commerce di jënd ka jaay xanaa xamoo kërug daarul mannaan gi biñ ko defaraatee sëñ bi mook maam Cheikh Anta sant ñu indi meuble yi ñu ko orne ndar lañ ko jënd ji woon looloo indiwaat li déclenché sëñ Tuubaa nu yóbbuwaat ko Mauritanie ngoog kon diplomate bu mag la woon mhm. gis nga doomam sëñ Modou Mbenda moo jur xalifaam tey moo nekkoon chauffeur am da daan bind lettre arabe français boo ma saa am lettre français moo koy traduire maam Cheikh Ibra Fall nga xam lettre français yi ñu indi yëpp moo koy traduire mu fexe ba njabootam ubbiku ci lépp yeewu projet de société Serigne Touba. waaw ñu laaj ay soldaar mu joxe doomam daal ni sama doom day dem ci palaasu doom yi suñ Tuubaa la sama doom mu ngoog nga xam ni tey ca Saloni ca Grèce dem nga fa kon mu ngoog mu joxe doomam sëñ Modou Fallilou Fall moo tax sëñ Moussa Ka ni ko soldat sa yaa joxe sa doom Fallilou Fall am nag texe kon maam Cheikh il faut nu jàngale ko mhm. li mu wax te nit ñi war koo exploiter xam ko dafa bari mhm. waaw société Serigne Touba nan lañ ko war a mën a approprier pour kenn ku nekk ci Sénégal fenn foo nekk euh, nga yëngu ci li ngay def su ko defee ñu avancer par rapport ak contexte bi ñu nekk nii ci politique nga xam ne daanaka intérêt général dafa primétul lu ci ëpp kenn ku nekk da ngay xool lu la arrangé waaw mais sëñ Touba boo xoolee téere bu mel ni bul Matlabul Matlabul Fawzayni def nañ ci projet de société mu ne yàlla defal ma sama dëkk mu nekk dëkk boo xam ne day am ndox kon tey war nañoo jóg defe naa Touba ca kanam mu ngi ciy def liggéey bu am solo maa ngi ziyaare waa Touba ca kanam di nuyu Mandiaye Ngom soldaaru sëñ Touba. bokk ci nekk actionnaire bu mag. Touba ca kanam nga xam ni miil mille yi ñuy joxe mille tey jii wër na àdduna ñu dem ba tey jii wàllu ndox mi ñu ci jub pour Touba mën a am ndox mu baax a baax ndax sëñ Touba ko ñaan. wàllu sécurité sëñ Touba da cee ñaan war nañ cee taxaw ngir sécurité am ci réew mi exploité ko. wàllu jënd ak jaay ba pare nekk loo xam ne kas bul xalaal day lew sëñ bi da cee ñaan wàllu nangoo liggéey ci tool yi bay sëñ bi da cee ñaan wàllu li ñuy wax hiérarchie ñi war a jiitu jiitu ñeneen ñi topp leen dooleel leen sëñ bi def cee ñaan wàllu tabax bërëb yoo xam dañuy jàng day gis ngeen sëñ Muntaxa dégg gi mu dégg ni lépp xam-xame xam koy mooy fondement bi mu taxawal université 37 milliards tey jii dem nañu ba des milliardaires murit dajaloo lëkkaloo maa ngi ku mel ni El Hadj Abdoulaye ku mel ni Serigne Boub CCBM ku mel ni Bamba Ndiaye seen karo sama xarit ak soxnaam Adja Matiloo mm-hmm. ku mel ni maître Madické Niang ku mel ni Mbaye Sarr Sénégal Tour sama xarit bu so sama soppe boobu mën naa ci lim ñu bari mm-hmm. dañoo lëkkaloo El mbay Mbaye Guèye ñoom ñëpp def seen doole ci lan fexe loolu sotti ci seen wërsëg te ay murit lañ yoo xam ne ñu ci bari fi ne bari na murit yoo xam ne jànguñu ci école tubaab yi mais dañoo dégg sëñ Tuubaa te gëm seen bopp góor góorgóorlu ci wàllu économie liggéey tey ñu ngi def loo xam ne ñu ngi koy génn ba extérieur liggéey yoo xam ne tey jii ubbi ay societé yoo xam ne Sénégal yëpp ngi ciy liggéey te dañ boobu ci la kon mooy dégg gi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dañoo tegal benn projet de société boo xam ni suñ ci tënkoo nangoo liggéey dellu ci mbay mi surtout mm-hmm. dellu ci mbay mi dellu ci jàmmoo dellu ci entreprise yi liggéey te bañ di yàq mm-hmm. sëñ Tuubaa bind na ci ay téere xoolal benn téereem bu tudd silkul jawahiri fi axbaari sarail da ngeen dégg sëñ Modou Kara mu koy prôné lu bari téere boobu ci wàllu politique bu ci justice sëñ Tuubaa na ci justice wàllu atte atte buy jeng suñ ko dundee tey yooyu dootul am ci Sénégal te na xuddaatu naa am sawlu suusa waaw ah, nee na sunu àttekati jamono léegi dañoo mujj ci ëpp ay bandi lañu la wax umuman fil haqiqati la saa li ëpp ci ñoom nag waxuma sax benn parti waaye léegi genn wàllu gépp ni ñuy attee dañuy jeng mhm. kon teg atte bi ci yoon te réew pour mu développé li koy développé mooy wàllu économie bi il faut ñu taxaw ci sëñ Touba créé secteur euh, secteur informel bi loo xam ni bari na tey ci secteur informel bi ñoo xam nekkuñu tey ci bureau yi ñuy wax mais tey ñoo ŋànk économie Sénégal bépp te loolu sëtam prôné na ko les années cinquante sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mbaa xam nga ne sëñ Cheikh Gaynde Fatma ay mille neuf cent la demoon Koweït seeti seeti ca Koweït City Boubacar Sarr mi nekkoon ci à l'époque ambassadeur bu senegal biir Koweït uh-huh. bi muy dem sëñ Moustapha Diop ngekk la àndal uh-huh. tombal baay mu seeti ko Tchad Moulay Idriss Assane II dem Baltimore Baltimore les anne quarante huit quarante neuf yëpp maa ngi ak archive yi. Mhm. dem ba ki ŋànk tey lépp ci wàllu affaire extérieure ci biir Amérique sëñ Seex dajeek moom pour xool projet de société sëñ Touba mu taxawal ko ci Sénégal. macha dafa raw époque ay at. Mhm. te yooyu mu ngi fi des ba tey bind yëpp li mu bëgg. kon faaw nit ñi dellu ci sëñ Touba jàngale ko. c'est dellu ci sëñ Touba bëgg ko dellu ci sëñ Touba liggéeyal ko te tënku ci li mu bind. Mhm. te bàyyi complexe bi. Sénégal ñun suñu problème principal mooy complexe. ñenn ñu ngi complexé ca naar ya lañ jëm yoo xam ni mooy naar yi nga xam ni a ah, ñu ngi taxawal ay wahabiyaak ay yu demee noonu. Mhm. ñooñu lañu gëm. yow say mag magi réew nga weddi sa baay li mu gëmoon. Mhm. ni duma ko gëm. di xas sunu mag ñi. Mhm. ah di xas sunu mag ñi. nanguwoo xool seen téere ngir complexé. ku ci jàng ci réewu arab dikk weddi sa baay sa maam li mu nekkoon. ñeneen ña ca des dem ci tubaab bi complexé. boo waxee ni Victor Hugo mu ni ah oui oui oui il est bon. Mm-hmm. soo waxee Lamartine wala euh, Stéphane Mallarmé mu ne oui il est bon. soo ne maam Seydil Hadji Malick a ngi fii sëñ Touba ngi fii Cheikh al Islam ñu la bind ñu ne ah non non non loolu mooy complexe. Mm-hmm. kon bu ñu xeeb suñu bopp. Mm-hmm. loolu lañu sëñ Touba njëkk a defal ñu bañ a xeeb suñu bopp décomplexé. lu baax fu ko neex la ko yàllay def. ñu fonk ñëpp waaye nag fonk suñu réew fonk tam suñu làmmiñu réew surtout. ndax sëñ Touba. ci li mu ci bokk fonk suñu làmmeñ suñu làmmeñ mooy lan wolof nit du développé lu dul ci làmmeñu boppam mais tey Sénégal boo doon def làkk français def faute sax ñu daal lay xeeb te ñoom ñee duñ ko def ñoom booy def faute sax ñay tolle di def ndànk-ndànk di la déglu dama lay wax benn anecdote mhm. moom lay tëje mhm. bi may njëkk a ci Amérique te xamaguma kenn di kaw kaw gàddu samay saak parce que gan laa ci réew mi mhm. jàng naa sax anglais waaye anglais bi may làkk boo teg seen anglais ñoom parce que anglais dafa am anglais britannique mhm. am anglais boo xam nag mooy pur anglais anglais américain mhm. nga xam parfois dañ koy link mhm. waaw slang la ñuy wax mu nga day gaaw-gaaw boo xam man ngaa bañ dégg te di nga dégg anglais man nag anglais britannique laa jàngoon ma wàcc yor sama saak tiit benn instant bu bëgg a dem Brooklyn Church Avenue xaw ma fa mënumaa wax ak kenn americain bu ma ni aay nga ni ma sorry sorry mooy maa ngi jéggulu kenn du wax ak yow mm-hmm. aay mu ni ma sorry aay sorry ma ni dugg naa nag ci beneen réew ñu may daw morning sorry pare nañ waaye pour war la bu doon sénégalais ñu ñu wuute benn noir américaine romb ma mu ngi takk gaaga yi xam naa policière la wala garde pénitentiaire mu gis ma rek dalak dalak man ak sama coleen geeg bàyyi laat yeeg njëll gi ni ma ay ay sir how are you what do you need ma ne ko it's my first time in your country I come from West Africa from Senegal I want to go to Church Avenue but my English is so sucky I'm just trying can you help me please to show me the way mu ni ma your English is not sucky you speak nicely English what is the problem come on here I gonna show you the way you have to take the local train you go straight full in the next station you get off you take another train ma ne ko thank you mu ne ma yéeg mu ni ma bul tiit amul problème waxal la ngay wax anglais baax na ah sa anglais bi su góor gis nga complexe boobu loolu la war a génn ci sénégalais yi ñun da ngay gis koo xam ne tey boo defee fut ci sa làkk ci làkk tubaab mu reetaan la te wolof dégguñu ko kon nañu dellu sëñ Touba sëñ Touba tukki na sept ans yoo xam ni dellu si xam nga ñu mu nekkoon na tekke yi les ñuy wax tekkee na ngeen ko seet ci defan les tekkee moo français la mhm. ay xeet lañu mhm. baa Pune baa Teke baa Vili amit waaw mu nekk ak ñooñu te xool diir bi mu nekkee ak ñoom jël si ci réewam changé wul langage te ñii di dem Italie ku ci def 6 mois bu ñëwee ecco pronto ah grazie mille soppi na nga dem Espagne ola geta o pronto de nada nga dem ci arabe bu ñu ñëwee subhanallah ah maa raaytu mislu zalik ah kayfa anta soppeeku nañu yaa nii subhanallah kon yooyu lañu war a génn xam-xam ak langue bokkul xam-xam ak langue nit mën nga jël làng parce que moyen de communication la pour ñu comprendre la mhm. waaye nag xam-xam leneen la nañ exploiter sëñ Tuubaa bañ a complexé ci suñu bopp te xam ne langue bi moyen de communication la mais li sëriñ bi dëxëñ saa boo demee tubaab du complexé lu tax africain di complexé surtout sénégalais dañu fonk li la ñu am waaye jàng bitim réew xeeb say mag kooku dof rek la. c'est important ndey ndey di met dama lay bàyyi aussi nga tàggatoo en même temps balaa may dem ci Fatou Abdou. voilà xadi kontaan sant yàlla julli si yonent bi ndaxte koor gi jax na pratiquement donc euh, vraiment di wax ñëpp euh, déwénati remercier wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo lool lool lool remercier suñu invité bi sëñ Abdoulaye Diop Bichri yal na la yàlla kattanal dëggal la ci barke Cheikhul Khadim kontaan nañu lool lool suñu nabiyen yi nag tey moom macha allah. macha allah macha allah yéen itam yàlla na yàlla dëgëral remercier waa plateau bi yëpp wax dëgg yàlla euh, GP nag c'est une grande production très importante à valoriser parce que cela fait maintenant quatre ans ñu démarré ko bañ koy commencer c'était des défis te défis yooyu ba léegi ñu ngi koy continuer yàlla na yàlla def bu ne mu gën a jëm ci kanam ci barke Cheikhul Khadim bañ koy démarré di nuyu baax a baax Pape Cheikh Sylla di ñaanal tamit Ndiaye Dos moom nga xam ne itam moom lañu ñu woon ak production GP bi di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana euh, di ñaanal yàlla tamit ñëpp ñu jaar ci GP parce que sama xel day dem ci Thione Ballago Seck sama xel day dem aussi tamit ci professeur Bamba Ndiaye ancien ministre chargé des affaires religieuses ak ñu bëri ñoo xam ne nii jaar na GP ñu ngi leen di xalaat bu baax a baax di xalaat tamit ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ndax man weer wi daaw ci waxtu wi maa ngi seetaan GP ca clinique suma assistance kon damay sant yàlla jul si yonent bi ba nga xam ne ren ji fekk na ma fii di ñaanal yàlla tamit képp koo xam ne am nga tolof tolof ci jamono ji yàlla yëkkati la ba nga dem dox see sago ci bàkki Seydina Mohamed képp ku wute GP euh, ren ji bu ne yàlla na ko fekkee ci barke borom tubaab di ñaanal ñëpp wax dëgg yàlla kontaan lool macha allah di suma ma limee damay jiw mais production bi ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp technicien caméraman euh, maquilleuse yi ah. Mhm. damay jël lépp rek teg ko ci loxo moom mi Dani Guèye. Mhm. chapeau à elle macha allah remercier aussi tamit suñu ay partenaires bu baax a baax ndax boobu ba léegi ñoom ñoo jàpp ci ci ci ci ci ci liggéey bi ci sañse yi Bamba Sow design prestige. boobu ba léegi si 30 euh, jours mu may solal wax dëgg yàlla lu rafet macha allah ak samay humeur ak samay feemu. Euh, maa ngi koy remercier bu baax a baax di ko di ko baalu ak moom tamit di ko baal ak bu baax a baax di ko wax ni kontaan naa euh, remercier tamit bu baax a baax ki nga xam ne mooy Amina fulaar nekk marché HLM nekk femme bu jàmbaar boo xamante ne wax dëgg yàlla day yëngu ci création macha allah am fulla lool am fayda bëgg liggéey bi di ko ñaanal yàlla re chaussure fashion choose ngeen dimbali ma génnal ma daal bu rafet bi nga xam ne dafa bokk ci collection bu bees bu mu génne ci korité bi moom it mi ngi nekk ci HLM ci wetu mosquée bi foofu noonu ku dem rek di nga am euh, wax dëgg yàlla daal yu rafet yi jaajafal ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp gërëm encore Serigne Touba bu baax a baax jaa ngeen jëf euh, jërëjëf Ndeye Dimet Fatou Abdou waaw man sama laaj dama la koy may xadi <laughs> parce que temps bi jeex na mais damay ziar ñoo xam ne dañoo bëgg Cheikh Ibra mhm. euh, ku ñuy wax Fatou Mbeng mhm. ñu gën ko xam ci Mbeng Francisco mi ngi ci Italie ak ku ñuy wax Mame Mariam li ko waral mooy ñi leen yar eh, di sëñ Ousmane Mbeng moo leen yar ak soxna Fan Mbàkke eh, di taalibe sëñ Cheikh Fall bàyyi Góor ak ku ñuy wax Fat Diop moom it bëgg lool sëñ Saliou sëñ Saliou Fall bu Touba Khafour mu ngi leen di ziar bu baax a baax eh, Khady j'en profite pour peut-être tàggatoo su fekkee ne mën nañu mën nañu def loolu tàggatoo bi sànq Ndey Dimet mi ngi koy wax xëy na tey bokk na ci jour yu mujj yi et ci loolu également di remercier tout le monde su ma waxee tout le monde commençons par toi présenter émission c'est pas facile foofu boo fa toogee di présenter ngay xam ne yombul du tout donc bu fekkee ne yaa ngi koy doxal et sa première fois ñu jox la plateau bu mel nii nga di ko doxal donc ñu ngi la ci remercier bu baax a baax xadi di remercier Cheikh Sarr boobu nga dendal ay nit bu ñu nekkee dañuy waxante lu baax xadi dañuy waxante lu baax parce que dañoo nekk pendant presque des années ak ku mel ne Cheikh Sarr yow nga fekk suñu ci kër gi mais dara ñaawul et loolu jar na di ko wax ci occasion yi mel nii muy nit ku baax Cheikh saar di nit ku yaatu di nit ku ubbeeku euh, ci émission bi euh, ñu ci bari peut-être dafa gën a raffermir suñu ay liens parce que dañuy waxtaan ci lu jëm ci invité yi dañuy waxtaan ci kan mooy ñëw dañuy waxtaan ci coordination bi et loolu également ma ci jaajëfal bu baax a baax Mouhamed mbay lu jëm ci nabien ku ma mënti woo ba ci Moussa laa nga xamante ne dama ko sopp damay wax ne Mouhamed Mbaye fexeel nu Moussa Karamu laa ñëw parce que dama jàpp ne loolu domaine am la et mu koy def mu jaar yoon ma koy jaajëfal bu baax a baax Sayda Absa également def nañu fii man ak moom spécial Magal Touba mu nekk nit ku ja baax ma jàpp ko ngir loolu Cheikh Mbacke Mbuub ñoo bokk Daaru Xuddoos mu ñëw ci kër gi mais mu am engouement ci liggéey bi xër ci lool mu nga xam ne kii dafa bëgg li muy def ndey di met ndaw ñoo nekk ci kër gi di liggéey moom it également jàmbaar la sunu papa Abdoulaye Lam ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mag la day feebar di déplacé wu di ñëw ñu ngi koy gërëm di ko sant suñu papa Abdoulaye mbay Peex ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax amuñu fayam plateau yi bu ñu amee invité bu mag rek suñu papa Abdoulaye Mbaye Peex moo ci dugal loxoom ñi fi jot a jaar xadi xam naa di nga ci ñëw mais xam nga li tax ma mën ci wax mooy yu ci bari dama ci doon dox ci suuf nit sax du du wax ne man maay def lii mhm. muy Nafi Dieye muy Jeanne Mendy muy Nach mhm. muy Fatoumata Diop mhm. muy Safia Diatta ak équipe am Alima Ndione sa gentillesse kenn mënu ko wax Safia dalam baaxam kenn mënu ko wax na fi jéey bëgg liggéeyam kenn mënu ko wax ñoom ñooñu ñëpp bokk rendez-vous ñu ànd ak ñoom li nga xam ne mooy liggéey bi mu jaax yoon mu jaax yoon ñu bëgg ko wane ci engouement du ñàkk ma ma ma juum ci kenn ñu jéggal ma moom moo wadd foo mhm. gis day reetaan baax yaatu ubbeeku mais chapeau ki nga xam ne tey moom moo coordonné cette année le grand plateau suñu ko waxee mooy moom moomi parce que jigéen la mais am compréhension yaatu di partager ubbeeku am respect ci nit ñi Chérif Thiam nekk nit ku baax safi euh, kii saf euh, kii euh, il faut ñuy waxante yu baax yooyu ci suñu biir c'est l'occasion d'en parler mm-hmm. Chérif Thiam du mer nit ku oyof nit ku baax mm-hmm. dina kaf ba wax na li mu bëgg mm-hmm. Leyti Ndiaye jàmbaar la day coordonné ba ci biir plateau bi maam si di nekk fi mais daaw il a assuré Mara MD ki nga xam ne moom mooy Michel Mabba Jaxu Ba ak ki nga xam ne moom mooy Sukki ñi nga xam ne ñooy taxaw di tey caméra bi amuñu seen fay Babacar Mar sawaram bëgg liggéeyam yamul rek ci toog di téye mais di génn également dem sur le terrain ki nga xam ne moom mooy Baba Diaw également jaajëfal leen bu baax a baax ah jaajëfal bu baax a baax Omar Diallo Mbaye Seck ak ki nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, Papis Bodian xam naa yow di nga ci ñëw sax mais man li tax ma def ko xam naa ko xam naa ko di jaajëfal nag sëñ Ablaye Diop Bichri mi nga xam ne saa bu ñu ko soxlaa mu teew pendant des années saa bu ñu ko soxlaa ci plateau bu mel nii mu ñëwal ñu waxtaanal ñu ba suñu xol sedd ci cheikhul xadim suñu yaakaar tey ak ëllëg jaajëfal Moussa Karamu laa bu baax a baax a baax yàlla na la cheikh aw balla fay jaajëfal sëñ Abdoulaat Diouf mii ndax li nga fi wax sa way sànq ci wilaya sedd na suñu xol ndax daal xuddoos dañu fa am wàll mm-hmm. di jaajëfal ki nga xam ne depuis le début xadi pendant presque quatre ans bi grand plateau commencé ba tey yërëb ma sol cheikh sa daf may wax ne xalifa mbergaan mooy sa baax yaay couture ndax fidélité man je suis de nature mu may daggal di ma solal maa ngi koy remercier ci grand plateau bi. di remercier également ki nga xam ne ren muy déjà Astel moo may defal coiffure ak maquillage mais également sunu maquillage yu ci kër gi wax naa ko démb chapeau à Bougane Gueye Dany ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax euh, peccum euh, euh, liir bu neexee nday jaajàpp ci mbagg ba donc ñu ngi koy remercier xadi ñu ngi remercier tout le monde gudd na. moo tax ma bàyyi question bi mhm. pour mën a ñëw ci lii nga xamante ne aussi il faut il faut ñu waxante ko ci suñu biir kàddu yi yiw na rafet na euh, Fatou Abdou am na solo également euh, papa da dañuy nuyu itam suñu invité Abdoulaye Diop euh, tàggu ko plutôt <laughs> TV ñu ngi koy remercier ñu jéggal ma. mu ngoog balaa may dem de de l'autre côté suñu gan gi moom la ñuy euh, bàyyi mu tàggatoo ba pare comme ni ko ñëpp waxee saay suñu la soxlaa nga ñëw wuyu suñu donc ñun amuñu franchement sa fay ñu ñu bàyyi la nga tàggatoo dina ñu jéem sax oustaz fexe ba nga xamante ne jouru korité bi dina teew ci plateau bi waaye loolu négociation lay doon gi bu émission bi jeexee ba noppi ñu bàyyi la sëñ Abdoulaye Diop bi ñu. waaw ñu ngi sant mbokk yi ñu doon topp yëpp. di leen bégee di ci jiital baay Fall yi ndax tey maam Cheikh Ibra Fall lañ ko loon mm-hmm. maam Cheikh Ibra nag man dama bokk ci moom. Mm-hmm. sama xol bii da cee fees dell. macha allah tudde naa ko leer sama njaboot am na Cheikh Ibra. maa ngi koy ziar. te damay wax ni feek tuddewu ma ko fukki doom dama arrêté <laughs> ndax loolu cofeel la gu ma am ci moom ndax li tax nag ma mel noonu ci moom mm-hmm. mooy ni mu mel ci sëñ Tuubaa noonu léegi laay nettali lu xoromu loo xam naa ko tëjee ci plateau bi ngeen ree ci <laughs> dafa mas a am ganu saalum saalum moom maam Cheikh Ibra kanu saalum saalum gi sëriñ bu mag la ñëw seet si ko ci këram mu dalal ko ci béréb mu def fa ab diir tawat nag feebar feebar bu mett dem ba maam Cheikh Ibra seetu ni kii daal su ma jugul léegi mu faatu mu ne xaaral ma dem laaji sëñ Bamba ñaan ndax sama gan gii boo fi faatoo dinaa am gàcce lool ndax man la seet si woon daal di jug ni ñokket dem ci sëñ Tuubaa bi muy dem nag këll la yor këll def ci ndox ba mu ñëwee ni ah Mbàkke damaa jaaxle lool sëñ bi ne ko loolu indi jaaxle gi mu ne ko damaa ba Saalum dikk ci kër gi rek def fi ab diir nar a samay loxo mbàkke buñ ma daboon ni ma faatu na du ma ko weddi ma doon sàkku ñaan gu ko saafara yow mi nga xam yaa jubóog sa borom loo tinu mu tin la wax ko mu tin ma ci mu dund ba dellu dëkkam sëñ Tuubaa ni ko sikkuwul indi lu ñaanal ko saafara mu jox ko këll ndox gi sëñ bi def ci temps bu yàgg di ñaan bi sëñ bi ñaanee ba ni tëf ni ko boo demee na nga fexe ba mu jaar ci putu sa gan googu maam Cheikh Rafal gàddu këll gi ñëw ba agsi ci biir kër gi dem ba dëgmal néeg bi àgg suuf ah doom na sàkk pexe wala mu dee kenn wérul ñaan gu sëñ bamba ñaan nii du ma ko jox kenn ni toog daal di koy doom du ma ko jox kenn ni toog kon xir googu mu xiroon ci sëñ bi la sàkk pexe wala mu dee kenn wérul waaye gis nga sëñ Touba xam mu xam Cheikh Ibra gan gi fi mu tëdd la yëpp la yëg ndox mi jaar ci putam di jàll nekk sëñ bi àggale na yéen a jëb yàgg xam na du ko jox kon loolu mu xëre ci moom murit nekk war nga koo xëre ci maam Cheikh Ibra Fall ndax rek bëgg sëñ Touba kon ñu ngi sant njabootam di sant sëñ Saliou Fall surtout maam Cheikh Ibra Fall di doomu sëñ Modou Moustapha Fall waaw ah, di ziare ah, sëñ Manel Fall nekk ca Washington di surtout maam Cheikh Ibra Fall di doomu Baye Saliou Fall mu sëñ Modou Moustapha nuyu itam suñu soppe ca président sëñ Mbàkke Fall di sëtu Cheikh Ibra nu ngi koy beral nuyoo di ko ziyaare bu baax di ko bége bége Baay Fall yépp surtout maam Cheikh Rafaal yi waaw ndax dañoo bëgg ba ñu xam ko dañuy defal ay teraanga ba ñu xam ko ndax xam gi ñu xam dañoo bëgg seen maam ñu ngi leen di bége bu baax di ñaan plateau bi suñu borom gën leen a dooleel gën leen a jàppale jàppale boroom kër gi ñu ngi sant suñu mbokk suñu xarit di kenn ci nun wax dëgg yàlla kenn du ci jàngam muy sëñ Abdou Lahad Diouf lim fi jàng neex na li muy gàtt gàtt tubaarkàlla ñëpp a bëgg te jàngam day wér ànd ak maxaarijul xuruuf yàlla ko yàlla sàmm mu yàgg lool ci barke turandum sëñ Abdou Lahad ak kuréel gi mu àndal yépp ba relève bii doomam yi gunge ko ci mu mat téeméeri at mu dund ko ginnaaw bi mu jox doom yi ñu koy wéyal lu mat ñaar téeméeri at yàlla mën na ko mu nga ziyaare sunu jarbaat Moussa Kallamullah mm-hmm. ku baax a ngi nii mm-hmm. ku ñoom dañu yaru wala yàlla dogal seen kër dañuy yaru mhm. ñoom ñi kenn du ma ci sàggane mhm. sàggane wala nga sàllalu ma muy magam maam Cerno ñoom ñëpp ak ay rakkam mhm. baax lool te jox ma cër ngir xam ni ma mel ak seen nijaay maa leen di sant di leen ñaanal sant leen yéen tamit ndax yoon wi yaatu na nag ngeen jël seen choix porté ko ci sama euh, modeste personne ak sama xam-xam bu gàtt te néew ah, ngeen ne ma kaay wéttalinu kooku tam man amel naa leen cant ndax da ngeen may wutal tuyaaba ndax wax ci sëñ Touba tuyaaba ji daa bari <laughs> yàlla yàlla fay leen sëñ Cheikh Mbacke Mbuub ñu ngi lay sant ñu ngi sant Mouhamad Mbay ci baax gi mhm. ndax lii muy def yombul yombul te nag lii moo war a am mhm. yëf buñ ko xatal yàlla dafa yaatal jarta xatal mhm. yàlla daa bokki turam waasiun aji yaatu ji léppam yaatu nañu bàyyi di xatal diine xatul xol yi ñoo bëgg a xat mais diine xatul nit fu mu baaxee na la neex. Mhm. donte daa baaxee Israël te ngeen bokk di ay jullit sa mbokk la. man loolu laa gëm ci principe boobu laa nekk. Mhm. maa ngi sant waa Xombal tey fa laa doon conférence ci bëccëg. bis bu mag bi tuddee ko man suur si borom daara ji. te ña ko def njabootu sëñ Tuubaa ne ca waa kër sëñ Mbàkke Madina ne ca yii mooy yu rafet waa kër tafsir buubu si la. Mhm. Euh, ñu waxtaan fa waxtaan wu rëy tey thème bi nekkoon thème bu am importance. bi ma ñëwee dégg thème yi dama ni man kat du ma conférencier bi <laughs> mais comme dugg naa dinaa waxtaan ci ñaari thèmes yëpp mhm. benn bi moo nekkoon al ilmu wa fawaiduhu ah xam-xam ak ay njariñam beneen bi kas bul xalaal fàggalu lew waaw ah, muy conférence yu am solo yàlla na yàlla fay leen yiiw ñu ngi sant tam suñu soppe yi ci dëkk yi nag mhm. parce que dañoo sonn ci nun saalum gële waa Luubaa mhm. dëkk bu sori la Luubaa ca ginnaaw Kaffrine mais dañ maa bëgg ba ma yëg ko maa ngi leen di sant murik ca ginnaaw sookoon maa gi sant waa kër Madou Yacine ndax dëkku Saalum yi dama ko wër waa Ségéré Seko waa Mbirkilaan waa Kaffrine waa Koungheul ak leen di sant bu yàggul bis bu mag ci sëñ Modou Roqee sant soppe yi conférence ñun ñooy mujj baare suñu liste nii dañoo sonn dañuy dem bitim réew noppalu te buñ demee bitim réew du ñu noppalu ndax xër gu ñu xër ci ñun suñu génnee ci mbedd mi waa lii ku ko dul sant doo gor mbedd mi da ngay dox ñun jëndatuñu yére ay nit lay joxe jasneer da ngay dem ba xàmmeetoo sa yére mhm. boo ñu sàccoon suñu yére du ñu xam ba nga sàcc ndax xamatuñ ko mhm. tailleur yi ni ñooy ñaw addiye sëñ Tuuba ñii di la jox dàll sëñ Moodu Jum démb dàll yu bari la indi ca Thiès mhm. la jóge ni ñoo la koy jox damay fàttali Côte d'Ivoire dama faa mës sa def conférence nit indil ma téeméeri peeru dàll ni fu ma koy yóbbu mu ne ma bala neexee maye kon teraanga yi ni murit yi defar ñii di la mayi oto ñii ay këyiti kër te sëñ Tuuba rek tax ñu koy def ñii ah ñii di la mayi soxna bu yàggul ca dëkk bu ñuy wax ñii bi dama fay conférence sama soppe bu ñuy wax Moustapha Seen ñii bi xale bu jigéen bi leen di doom bi ni ma addiya Serigne Touba bi lay sëñ bi duba ko jël mm. xale bi taxaw sama yaram bi daw xale bi toll ci baccalauréat ma ne ko bàyyi ko mu jàng mu demee ba dëgër ma jël si ko ah, yokk ko ca kër ga waaw yooyu yëpp yi duy rafet waaw dégg nga wax leen rek kon liñ ci jublu mooy <laughs> murid yi ñu ngi ah, ah, kon mu ngoog maa ngi lay nuyu di la ziar amel nañ leen cant sëriñ si amel nañ leen cant parce ñun kat tekkiw ñu dara waaye am na fu ñu teg ngir sëñ Tuubaa cofeel goog na koo delloo war leen a yaatal suñu bopp war leen taxaw ñu nit mm-hmm. maa ngi sant Mbaye Ndiaye mi nga xam ni taalib taalibe Serigne Touba la bëgg Cheikh Ibra tudde ko doom bi may ñëw falaa jaar sàggu mbaxane mu rafet nii mu nga ca Kër Massar maa ngi koy nuyu au passage du nuyu mbokk yëpp di leen baalu àq di leen baal mu ngoog ñu ñu ngi may teg pression vraiment euh, ah ñu tàggatoo rapidement Cheikh Mbacké merci waaw euh, Cheikh nga baal ma fàtte woon naa sama papa papa tàggoogul papa maa ngi jégalu euh, jërëjëf jërëjëf Khady mhm. man damay ñaan rek mhm. talal loxo yi sunu borom koor gi yàlla bu mu doon suñu mujjantalu koor mhm. grand plateau bi yàlla bu mu doon suñu mujjantalu grand plateau nee sunu borom maye kattan ak wér gunu àndandoo ak mbokku jullit di ngir bégal leen ci grand plateau euh, yal na sax yal na yàgg mhm. lépp ñu delloo ko bugaan di ko ñaanal yàlla taxaw ko yàlla jàppale ko waaye di euh, beral nag ak cant ak ngërëm euh, soxnaam su baax si di moomi gis nañu ni ñu ko ni mu coordonné Grand Plateau ren dañ doon wax ne Grand Plateau daaw yi ren euh, du mel ni daaw waaye foog naa ne ren la dàq Xadi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf Pape gis ni nga coaché euh, liggéey bi rafet na. jërëjëf euh, nag sama xel dafa dal ndax ñun dara desewuñu lu dul di leen gunge te tey gis nañu ne. relève bi c'est bien assuré ndax euh, ñi ñu seqal plateau bi euh, suñu xel dal na yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla taxawu yal na yàlla dëgëral leen te liggéey bii nga xam ne nii moom la ñu euh, tànn di ko def te mu jafe lool yal na leen ci suñu boroom defal succès bu kawe seen jort di bu baax sama turandoo moom saa ñu ko invité maak moom dañuy sonn parce dama koy lan la ñu war a waxtaanee naka la war a waxtaanee yan point la ñu war a waxtaan mu jël temps yëpp daal di ko di ju koy jox damay wax ne moom dafa bokk ci kër gi moo tax saa yu voilà moo tax moo tax moo tax toujours dama naan moom ci kër gi la bokk di euh, gërëm bu baax sama doom sama rakk ji di Abdoulahad Diouf ba may ànd ak moom ñuy ànd ak sëñ Mourtala di wër États-Unis boobu yaakaar naa ne <laughs> bariwul ñuy ànd ak sëñ bi fu nekk dem naa fa ak moom ma xam ni sëñ Mourtala meloon ci moom te dara taxul lu dul xaside yi mu féetewoo kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu wéral baatam moo ñi mu àndal sama doom jële itam di Moussa Kalamu la day kenn ci man maa ko bëggal sama bopp te nu ma mel ci moom rek nu ko raw la mel ci man kon maa ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla defal ko ndam lu kawe njortam ci lii muy yëngu Euh, ni ko Fatou di waxee nag di gërëm technicien yi liggéey bi bu melee nii rafete nii ñëpp di ko rafetlu ñoom la te kenn du leen gis ñun danañ ñuy dégg sax ñuy wax waaye ñoom duñ leen dégg ñu wax duñu leen gis te lépp ñoom la kon yal na yàlla barkeel seen liggéey yaa Sayda maa ngi lay nuyu euh, Cheikh Mbacke maa ngi lay nuyu di noyu sama ñaari ji doom yi nga xam ne damay wax toujours ne ay jigéen yu mën góor lañ kii nag moom day sama péete bopp sama soxna bëggu ko lool def ko doom xam ne moom it mu jox ma sama wàccuwaay. di gërëm nag bu baax euh, waaw. ma daf ma defal décoration. Mm-hmm. dessiné ma defal ma photo yu rafet. di gërëm bu baax euh, nag mu ngi euh, émission bi maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant. jërëjëf ñuy fàttali itam guddi Cheikh Ibra bi nga xam ne le le sept la. te Serigne Cheikh Khadim Fall di ko organisé ci stade Demba Diop waaye di ziara Serigne Mamor Mbacke Abibou. di kenn ci man. jërëjëf. Euh, ñëpp la defal teraanga jooju. Uh-huh. moom mooy day liggéeyal maamam ci taalibe yi yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla taxawu. amiin Serigne Thioub wax nga ko léegi ca mbuur uh-huh. moom it di murid sadiq boo xam ne ni tubaarkàlla amul moroom euh, Serigne Matar Sey la fraîche. Uh-huh. di sunu xarit moom itamit xeetu teraanga bu nekk mu ñu koy defal te Serigne Touba rekk tax. Ibrahima Ndiaye moom Serigne Modou Bousso. mu nga nekk ca itali le vingt cinq bii lañ amoon benn bés boo xam ne ñu ngi ko jagleel sëñ Modou sëñ Modou Bousso nag ñëpp a ko war a delloo njukkal waaye rawatina nag waa diaspora bi ndax képp ku fa nekk rek am na lu mu loo lu mu seq ak yow loo xam ne da yaakaar ne yow rek la ko seqal di gërëm Cheikh Fall Mbeng ak mboolem membre caravane euh, sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi koy waajal ca Gabon lañ koy kii toppaat jaar-jaaru sëriñ bi ca Gabon. Euh, fépp foo xam ne sëñ bi dem na teg na fa tànkam ñu bugg ko mandargaal mandarga boo xam ne nii ku fa jaar da nga xam ne fii sëñ bi jaar na fi di sant sama famille samay doom di sant euh, mbokku téléspectateurs yi ak ñi nga xam ne dañuy jàppale waaye di sant bu baax nag euh, sama tailleur muy waa Touba Couture ñu nekk fële ca unité 8 ci booru croisement 22 mhm. muy Yoro et frère is ngeen fi ñu génn tey jii waaye di bëgg ci sama doom ji nga xam ne nii moom it moo joxe tissu yi mhm. mu waa Planète Tissu yi nekk ca euh, Nord Foire mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu àq ñëpp tey baal àq ñëpp asalaamaaleykum. mu xam naa émotion bi moo jàpp ñenn ñi rek ba ba yenn tàggoo yi waaye demain on sera là tey du dernier numéro bi Cheikh Mbacke maa ngi jéggalu ci ni ma la dagge woon tout à l'heure yar bi day na ma sëkk macha allah. damay ñëw ci. Euh, yëbbante papa peex balaa ma koy fàtte sama Ablaye Mbaye peex ne dafa kontaan ci jataay bi ba ba léegi mi léegi laa doon ak moom mhm. nee mi ngi sant ñëpp vraiment ci bi ngeen ko jox ak fi ngeen ko teg waaye nag amul lu kër gi ndax bogaan daf koo sagal nee koo sagal kon amul lu kër gi sëñ Ablaye Diouf Ablaye nee na mi ngi lay sant di la gërëm yow ni ku baax nga ku am kuréel bi mu la woo da ngaa fàtte woo dara loo mbooloom yëpp sama cantu bopp nag maa ngi koy jëmale ci président Bougane Gueye Dany ndax fecc bu neexee yaay ja moo jàpp ca liiri gone ga maa ngi ñëw bokk sëñ Mbacke soxna loo ma ñëw ci kër gi je suis le dernier arrivé niñ ma toléré man ku bari xat-xat laa waaye ku ba am damaa bari ay yëf na damaa bëgg lépp jat noonu laay doxee xëy xëy na léeg ma xaw a débordé sama ëppal yooyu waaye lépp ëppal ci bëgg lu baax la kon maa ngi jéggalu bu baax a baax ngeen xajal ma yàlla xam ne ne ndamul kër gi laa bëgg tey bu ma beneen télé woowoon defal ma contrat barke sëñ Mbacke sama lu fi laa des ndax dama bëgg Bougane ngir sëñ Mbacke. je je parle devant le contrôle du monde entier adduna jàkkaarloog man sëñ Mbacke rek laa koy xoolee. Mhm. barke borom Taïf maa ko sant ko gërëm di sant njabootam soxna moom mhm. yi. maanaam lu sëñ Mbacke euh, ci ni mu vraiment coaché plateau bi lépp jaar na yoon. Astou Abdoulaye Diop Bichri à César ce qui est à sant nit doo sant yàlla. sa xam-xam sa ràññee sa culture ak li nga xam ne mooy sa polyvalence nga waxtaan sëñ bi mën a dugg ci anglais dugg ci espagnol yi loolu lañ soxla keneen ku fi toogoon di wax lu romb loolu ñoo ngi lay sant di la gërëm yàlla yàlla guddal sa fan te ubbi si lan ab ab talib sant bu baax ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñuy topp sama njaboot daanaka ci autorité laa dëkk Dakar Touba Dakar Touba dem naa Touba ci bis leetu xadd ziyaare ji soxna soxna Astu Gaynde Fatma jóge fa dem ci sëñ Mamour Abibou ca Paas ca ca Mbaba Garas Pala Dogo mu defal ma teranga rëy ni ma lii ku ma ko ku ma fekk rek fonk naa la Moussa Faye Diouf diw ànd ak maar tëpp laylatul xadri ci même jour bi laa ko defee ci même jour bi laa ko defee maa ngi sant loolu lépp ginnaaw yàlla maa ngi sant sama njaboot ñu man maa may loolu may def Touba Dakar mel ne ku daanaka kuy dem marché ak ak asolem di sant bu baax sëriñ Fallou Abo Fallou sa jéey mu sëñ euh, sëñ sëñ sëñ euh, Fallou sa jéey sëñ Abo mu yor soxna mooy moom sëriñ Mbacke soxna di sant bu baax soxna maam Fatim Mbacke ma du caat sëñ Modou Safa du rate Grand Plateau seen TV rek lay seetaan mooy caatam sëñ Modou Safa mu jigéen ñoo ngi siyaar baax famille sëñ Abdou Fatah Gaynde Fatma seen TV ko tuddee maa ngi sant baax soxna Njaaya Mbàkke moom sëñ Fallu ñu ngi ko tuddee soxna maam Seydi bu Njaay di yaayi Seex Ibra moom la ko sëriñ Fallu tuddee seen soxna moom sëñ Koso Astu Lo moom sëñ Modou Awa Balla Fatma Sow ak yaayam may may caw ca Paris daanu nag daan bi saali si ndaw baanam moo def génn ni ci bassin lu lu lu ma bëgg rek dama koy defal Cheikh nekk caisse de dépôt et yàlla yàlla yàqu jàmmam ak njabootu àlla yàlla jëg mu suburu yëpp waaw waaw monsieur na kon à demain inchaallah yaa rek jël nuyoo bi rek def ko si loxo Cheikh di ko ñaanal bu baax papa yow tam ñu ngi lay ñaanal yàlla bay la fi suñu kanam dara ñaawul vraiment ay nit yu baax ngeen ay nit yu mën a joxe cër ngeen nee naa nit lu muy xëccoo rek da koo amul mhm. mais ñoom toujours dañuy dem yóbbu ci kanam des ci gannaaw Mouhamed xam na ci dara coché nañu fii coché ñu Touba Tivaouane Ndiassane fu nekk ñu ànd ak ñun ak suñu papa Mbaye mais ñu nekk ñoo xam ne ay nit yu am personnalité lañu. xadi mhm. euh, ki may jaajëfal mooy ki nga xam ni valise la ma defaral wallahi macha allah valise solo guma yëpp. Mhm. muy Pape Mbaye. macha allah te fële euh, ba dama koy mën a jam ñaajo jam ñaajo bu nga wax la ma defaral wallahi jekk na solo ma yëpp moom ba léegi nii mi ngi mi ngi mi ngi kii nañ ko rek 77 573 11 68 77 500 73 11 68 valise la ñu defar xam nga émission bi métti Cheikh. léegi émission Afrique daa métti de may tëjee xam nga fan la. 3 heures de temps la ji 3 heures de temps mu wax Cheikh gis nga li Cheikh wax dëgg la bugaan bi mu ñu man bi mu may woo fekk maa ngi ca daara ja naan xale bi waxal muy wax ñu ne ma kaay ñu ma fekk sama mama gañ siri première émission bu ñu def fii ci kër gi weeru koor man ak moom ñoo ci ànd maa ngi koy ñaanal bu baax fu mu ci nekk mama gëñ siri parce que ci loxoom laa jaar ba ñëw ci télé bi mu gunge ma gunge ma ba ñu war a dem ñoom tam ñu dem comme ni papa wax bàyyi ñu ñun xale ñu dox maa ngi koy ñaanal bugaan bi mu ñuy jox micro boobu xamuñu nan la ñuy téye micro cheikh dëgg la jànguñu journalisme jànguñu dara bugaan ñu wax ñu gëm leen seen bopp ñu toog di wax prouvé mu mën am fit tool ni jox ñu ay émission yoo xam dañ koy diriger ay at depuis télé bi commencé ba léegi kon teraanga bu ñu defal ci télé bi tur wuñ fi am ak luñ fi mën a am ñu ngi koy gërëme ki nga xam ne moom mooy Bougane encore une fois damay wax ni ku ko neexul ci télé bi dafa feeñ intermédiaire amul ci télé bi da wax lu leer wax xam-xam nga toog waxoo ko amul ku la mën a teg fii fekk moom neexu ko kon ñu ngi koy ñaanal bu baax moom Bougane ak nga xam ne mooy moom mi nekk jigéen joo xam ne macha allah moo nekk ci gannaaw ñu koy ñaanal di jaajëfal ñëpp di jéggulu erreur boo xam ne rek wax nañ ko ci ëtt bi di leen jox rendez ba déwén incha allah. mu ngoog man moom sama parcours xam naa dama koy denc ba suba Cheikh ma ñëw. <laughs> mais euh, leneen itam dinaa ci ñëw xam naa suba lay doon wala ginnaaw suba ndax man sama coup de cœur ne sax ci ci ci weeru koor bi waaye ci année bi yëpp Cheikh Sarr mii toog la de par sa générosité ak yeneen yoo xamante ne incha allah dinaa ci ñëw ndax tey moom waxtu bi mayuñu ko Cheikh bàyyi la nga tàggatoo man man sama tàggatoo dama koy teg ci kaddu bu wax parcours nag. non non non man sama tàggatoo dama koy teg ci kaddu yi fi gars yi wax yëpp rek. ma dugal ko ci biir. sama sama tàggatoo fa laa koy dugal. mais dafa am benn xam nga man ma bëgg ay jeu de mots. da ngay dégg may wax ay ki tax ngay tax da ngay dégg may wax bëggal ki la bëgg. mais dafa am benn euh, Baye Blay Diop Bichri dafa am wax ju mu wax sànq. ne moom waxtaanee Serigne Touba fuñ ko ci woo day dem. loolu benn phrase laa ci indi rek sooy wax wax ki wax wax ji. ba am ci loo xam ne musoo ko am ci say wax. bu la benn wax desee pour nga faatu. Mm. bu la woowee pour nga wax waxi waa waxi waxi kooku. Mm. fexeel wax waxi kooku te faatu benn wax. Mm. que li ngeen wax. wax bu xóot. maanaam soo dee wax. Mm-hmm. waxi ki wax wax ji. Mm-hmm. ba am ci loo xam ne musoo ko am ci say wax. buñ la woowee ngir nga wax ay waxam. te benn wax dese la pour nga faatu. ñëwal wax waxi ki wax wax ji boo noppee faatu. Bichri jërëjëf parce que xam nga des fois dama am na ñoo xam ni dañuy nettali waxi yàlla ba am ci lu kenn amut ñu xëy di leen woo pour ñu wax waxi yàlla ñuy wane woo kenn am na fuñ toll macha allah dégg ngeen wax ji mm-hmm. ak nga wax dëgg donc Bichri jërëjëf fekk dañuy nettali waxi jàmbur yow wax waxi jàmbur rek nga toll ci fenn fi benn niveau boo xam ne buñ la woowee wax pour nga wax waa ji sax nga ciy laajte wala di ci wane sa bopp bind ku ko bind dalul loolu laay wax di tàggu di di di jaajëfal bu baax a baax a baax Xalifa Mbergane li fa Couture mi nga xam ne moom a solal numéro téléphone am 77 442 29 16 ngeen baal maq ki ki ki ma solal na ma baar rek bu subaa itam moom laay ubbee <laughs> dinaa ci ñëw oustaz ma bàyyi la nga tàggatoo nga jox nabiyen yi itam ñu tàggatoo maye naa sama tàggoo yëpp ndax suba insha allahu taala dañuy ñëwaat spécial Ibou Sine Thiaw laay la te dañ koy àndante ak moom kenn rek laay laay laay laay joxe numéro kenn rek laay gërëm ki may joxe numéro mooy taalibi Serigne Fallou docteur di Serigne Mbacke Ndiaye lii ma sol moo ma ko ñawal man daanaka comme damay xëy di wër rek ay càq-càq rek laa yónni du ma xam sax maraaki su muy àndal ak daal damay xëy damay dañ may fotool ñaw bi wan ma ma ma xool fu ma ayee ci soxna yi rek ma yónnee la foto bi ne la xoolal mbaxane xam ne àndal nga nga yónnee ma ko kon maa ngi koy ñaanal bu baax a baax numéro am di 77 899 28 66 77 899 28 66 ki may gërëm nag kenn kase la muy sama ñaari jur gis nga man caat laa judduwuma ci ñu ñuy xool di leen naan ñi ay nitu alal lañu sama xarit daan na ma may dàll boo xamante ni solatu ko ma raxas ko ba mu rafet sol ko di ko tiitaroo tey xarit yooyu bu ñu amee xew wala ñu am soxla dañuy tiitaroo pour mën naa ci ñëw loolu bu dee am ba tey sama yaay la moo ma yóbbu ma jàngi bi may ñëw fekk naa sama papa jëm mag retraité militaire la woon mais lu ma bëgg daf ci ñi xam nañu loolu sunu kër ñëpp ay menuisier lañu mais dañu maa ber ma génn bi ma waree jàngi école français sama papa Gàmbi la ko fekk mu yóbbaale sama ay këyit ci saagam ma ni sama yaay mu ni ma nee nañ mënoo dugg école ñu dugal ma école arabe ndakate école arabe boobu mooy indi tey ma bëgg Seydil Hadji Malick mooy indi ma bëgg Cheikhul Khadim mooy indi ma bëgg Mame Baye Niass sama papa ki topp la ko tuddee sama mag ma bokkal ndey ak baay taalibe baay ñes la tuddee na ko doom ñun suñu kër amul mbiru tarixa moo tax sonnaluñu ñële toog sama ay goro lañu seen mag bu jigéen mu ngi sëy ak sama mag bu ma bokkal ndey ak baay te taalibe cheikhul xadim la man sama ñaari soxna yëpp ay taalibe cheikhul xadim lañu saal bi boo fa duggee photo sëñ Abdou Xaadir nga fay fekk beneen saal bi boo fa duggee photo Serigne Saliou Mbacke nga fay fekk parce que tarixa sonalu ma xam nga lan fu ma liqaamee gis leen sama ginnaaw ñu kabaar ma kabaarandoog ñoom mhm. bu yowmal xiyaamee lu leen cheikhul xadim may ñu wàll ma lu ma seydil xaaji malik may ma wàll leen yaa noonu yàlla defal dégg ak topp kàddu yi rafet na ñu jox na bien ñu yëkkati ñu tëj